ndaw ñi doon mbëkki des ci géej gi bàyyi seen ginnaaw naqar ak tiis seen njaboot di dund lu metti bu ñu sukkandikoo ci seen ay kàddu nguur gi amaluloo benn taxawaay jëmale ca ñoom ñoom ñi le sax di ñu xamal jafe-jafe yi nuy jànkoonteel am loo xam nag wax ci Sénégal nag foog nga wax loolu moo tax ñu wax ni pour ñu dégg suñu kàddu rek wax ni famille des migrants disparus am nañu jafe-jafe état bi na taxaw ci moom gis nañu également au niveau de la mairie subvention yi ñuy joxe famille des migrants duñ ci bokk ci ñoom dañu am ci jëm am nañu ay papier na leen dimbali bu ñu joxee subvention yi association yi bu ñu joxee subvention yi ñu jox leen subvention yi ñoom tamit parce que ñoom la ci la mën a seen doom yi dimbali seen bopp ci bésu fàttaliku migrants yi des ci géej gi kuréel gi ëmb njabootu ña ca loru daal di nañ rek proxndol ci jotaay bi ngir rek ñaax nguur gi ngir mu faj seen ay soxal lépp lu jëm ci wàllum yoon ak i këyit. léegi nag dañuy ñaan état bi. ñooñu bu ñu ñëwoon ci maire yi xam ne fa la ñuy joxe kayit yooyu ñuy jàppale leen ci yombalal leen ko ba duñu am jafe-jafe bokk na tey loolu moo tax tey ñu organiser rencontre bi bëgg na également état bi ñi xam ne seen famille des migrants seen loxo seen ginnaaw jëm ci kanam ñu jàppale leen à travers la prise en charge des des des préoccupations c'est-à-dire si xam ne seen bëgg-bëgg lu ñu jàppale leen ci waaw ndax. ci naqar googu ñuy dund rek famille migrant yi di rafetlu taxawaayu comité international bu croix rouge mi leen taxaw bu baax a baax si delloo si seen xel ak yeneen jéego. dans l' appui psychosocial parce que ku xam nga ku sa doom euh, gaañu di nga am problème. ils ont mis présent jël ñun ay ni ay ay psychologue mettre à la disposition d'abord de ces familles ñu jàppale leen xelal leen dalal seen xel ba ba ñu dellu soit ci société bi wut nañ def nañ ci ay alphabétisation ay alphabétisation xam ne dañ famille des migrants yi dafa leen formation alphabétisation. mu ñàkk doomam amoon ci lu tollook ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci atum 2007 ki yore kàddu ko kuréel gi ëmb njaboot gi ñàkk seen ay doom ci géej gi mi ngi rek sàkku ci turu kuréel gi ngir rek nguur gi daal di leen gunge waaye itam fajal leen seen ay aajo ba ñu mën a demal seen bopp.